laylatu mawlid nabi laylatu maawi riyabi laylatu maawi taabi wa tuuri shitta azmi biha najaatu wal falaax maa suruuri wal najaax biha rabaaxu wa salaam maa indifaa'i niqami asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatoo ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi sant Serigne Touba ñoo ngi ñaanal Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi ak njabootu borom Touba gépp noonu la ñuy ñaanalee Serigne Abo Baraka mu yàgg fi ak njabootu sëñ Fallou gépp moom mi nga xam ne moo toog jataay bi sëñ ñu nekk fii nag ci dëkk bu tedd bi nga xam ne ku ne xam ne dëkk bi ni ko ko tedd ki sance woon muy Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacké mu ko sancee sance ko ci sance wu ñu moom ku fi déeloon muy doomam ju baax ji nga xam ne kenn ku ne xam na ko ci yoonu murit muy Cheikh Abdou Fatah Mbacké moom Serigne Fallou bi ko fi déelee nag jox ko ndigal tudde dëkk bi ndigal dëkk bi di dëkkub ndigal muy wéyal ndigal loolu bopp nag ànd kook njaboot gi sàkk boo xam ne nii at mu jot bu weer wi jotee ñu waajal bés bi muy bisu gàmm bi nga xam ne ku ne xam ne bisu ba gàmm bi mew li du nabi bisu yonent bi sëñ Abdou Fatah daje fii ak mboolem teele bi ak mboolem wëlëre xarit yi ak doom yeeg ñëpp ñuy dundal bis bi nga xam ne bis bi ñëwee ba guddi Serigne Abo Baraka mi fi nekkal Serigne Fallou dana fi ñëw ah ñu dalal ko fi mu nekk fi ba guddi mu door a mu door delluwaat bis boobu nag ci lañ nekk nii nga gis njabootu Serigne Abdou Fatah gi képp koo xam ne yàlla dogal yaa ngi ci dëkk bi rek tey yaa ngi fii ci ndigal nekk ci bis bi ndigal li ngir ndigal li nga xam ne moom la Cheikh Mamadou Fadal ndigaloon Serigne Abdou Fatah ñu nekk nii nag ak benn dal boo xam ne nii ki fi nekk di ku ñu wax soxna Ndey Jaañ waaw moom Serigne Njool Jaañ di soxna Serigne Abdou Fatah waaw ñu nekk fii ci dalam Eh, ànd ak daayira yi nga xam ne ñoo fi nekk ak taalibe yi ay rakam nekk nii toog ay doomam nekk fi toog ku nekk xam na ne doom ji ñuy wax soxna Ndey Mbàkke mu baax mi ku nekk fi sell na télé bi nga xam ne mooy nit ak activité ku ne xam ne ne moom moo ko moom ñu ñëw fii tey nag ci bis bi nag war a jàkkaarloog doomu aadama fi nekk laaj leen nan lañ gis ci bis bi balaa booba nag dañu jox Serigne Modou Mbaye mi nga xam ne mooy jànkatu xasaayid kër Sëñ Fallou mu yëkkatee bayit aousu billahi min alsheytan arrajim wa inni ushabika wa surriyataha min alsheytan arrajim rabbi auzu bika min hamazati sayatini wa auzu bika rabbi an yahduruni bismillahi arrahmani arrahim wa sallallahu taala ala sayidina muhammadin wa sallama taslima faqad jaakum basiru faaxat jamia al anbiya wa rusuli sayyiduna ahmada habibul mursali xadama ahmada alal kirami musribihi lil kulli bi ixtiraami darajatu habbi rasuli ahmada سيارة الأخيار خرا حمدا درجة عبد الرسول أحمدا سيارة الأخيار خرا حمدا جاد النبي يوم ألست بجواب للخر فالكل أجاب بسواب أحجس كل والد ووالدا أحمدنا الذي علاه خالدا آيات أحمد حوت حياتي من مدى ومن ياتي وفاخت ساسما كتابه كتب الرسل المنسلي حوى وجاد بالخراء والنسلي محمد عليه أفضل السلام مقدم بخير فعل والكلام محمد عليه أفضل السلام مقدم بخير فعل والكلام بداية الماحي نهاية الخيار فدله على الورى سول اختيار سعيد كل سيد يختار بأن أحمد هو المختار سعيد كل سيد يختار بأن أحمد هو المختار ينخاد للمختار ما سواه fara lahu fadlan waqad hawaahu rasuluna faaxa jamia rusuli wal anbiya wa huwa alhabibul mursili rasuluna faaxa jamia rusuli wal anbiya wa huwa alhabibul mursili subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين sëriñ Modou Mbaye xasaay di neex na lool ku la dégg xam na ma ko kon dañuy jàllale kàddu gi rek jox sëriñ Xaadim Diagne mu nga xam ne ku nekk xam na ni mu demee ci bis bi ak diggam ak soxna si kon sëriñ Xaadim noo dunde bis bi ak nan nga gise bi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo leen di siyaar di leen nuyu lu bare bari di siyaar borom jàng yu neex yi di Serigne Modou ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo fi teew leen gërëm bu baax di leen sant eh, di siyaare Serigne Abdou Fatah Mbacke ibnu Serigne Fallou ak mbooleem njaboot gépp di siyaare soxna Nday mi nga xam ne tey moo ñu fii ci dal bi eh, di leen sant bu baax leen gërëm di siyaare eh, Cheikh nga xam ni moo di Serigne Mountakha Mbacke ñaan suñu borom yàggal ko fi di siyaare Cheikh Abou Albaraka di ñaan moom i suñu borom may ko wér ak gudd fan di wax ni. Eh, gàmmu gi comme niñ ko gisee rek fii nii ci ci Touba Ndigal eh, ci ñu ñëwoon tey eh, teewal fii ki nga xam ni moo di soxna Ndeye Diagne suñu mag di koo xam ne ni yàgg naa def teraanga yu mel nii ci gàmmu gi nga xam ni chaque année bu gàmmu gi ñëwee dana ñëw indi ay ay li nga xam ni moo di teraanga yu baree bari jox ko mbokki taalibe yi ànd ak njaboot gi ak donga yi ak mag ñi ak ndaw ñi ak ñi nga xam ne tamit ñoo di ay rakkam ak magam ñoom ñëpp teew nañ ngir ci bis bi nga xam ni moo di bisu mawlit sa sa wa sallam eh, di ko ci gërëm bu baax di ko ci sant di ko ñaanal suñu borom may ko gudd fan gu ànd ak wér eh, tam tam yàgg koo def yàgg koo fekk yàgg koo teewe te suñu borom defal ñu tawféex te daje ceeg ngërëmal Serigne Touba tubaak Serigne Fallou ak te ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nangul ñu ko tamit kon bis bi daal ni nga xam ni noonu laa gisoo mooy eh, lépp jaar na ci yoon lépp doy na dara manqué wut njaboot gépp teew nañ ñëpp ñëpp kontaan nañ di siyaar bu baax soxna nday Mbàkke mi nga xam ni moom moo taxawal lii nga xam ni moo di Ndindy Actu di suñ jarbaat di ñaar suñu borom defal ko tawféex moom it ba mbir mi jëm ca kanam mu dem ba nekk télévision bu mag ci at ci àdduna bi ñëpp di ko seetaan te suñ borom defal ko tawféex ak jàmm di siyaar ñëpp di leen nuyu baax. jërëjëf Serigne Khadim Diagne ci kàddu rafet yi nga xam ne moom nga doon jottali léegi. ku la dégg xam ne am nga yéene ci bis bi te it kàddu yëpp rafet na noonu la ñuy wéyale jotaay ba tey bi ñu jógee ci Serigne Khadim Diagne ñu ñëw ci ki nga xam ne mooy soxna Soda jaañ moo yor ci kàddu jigéen ñi moo wax ci kàddu jigéen ñi soxna si nan nga gisee bis bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi ñoo ngi sant Serigne Fallou di wax jërëjëf Serigne Fallou jërëjëf Serigne Fallou jërëjëf Serigne Fallou di sant nag suñu ñaari waajur ndax lépp ñoo ma ndax bu ñu bu ñu bu ñu nekkutoon ci caalal ak sëñ Fall lii rek lii lépp du am ndax bu yàlla dogaloon tey jii nekkuñu ci caalal ak sëñ Fall lii lépp du am ndey mi nag doomi donga la ku gis jëfam jii muy jëf nga xam ne jëf yéene la ko defee ndax ban ko njëkkee commencé malut nii waaye nag jëf jooy jëf te ànd ceeg pas-pas ak bëgg akuk dëggu tànki kanam rek lay am waaye du am tànki ginnaaw surtout nag di jëfal sëñ Fall ndax ñun danoo war a sant yàlla bu baax bi nu yàlla booleeg waajur yoo xam ne amuñu lu dul sëñ Fall tàbbal ñu ci géejug sëñ Fall bañ di ci tëmb kon ndey maa ngi lay ñaanal ci barkeb sëñ Fall loo man ren bu déwénee yàlla na nga mën lu ko di ñaanal nag soxna ndey bàkk suñ taaw bu jigéen bii nga xam ne seetaanunu seetaanunu benn yoon waaye nag mu mbàkke baax rek la mën ma ndax li tax mu mën a baax mooy ku sëñ Fall di sa maam digganteem ak sëñ fàll sëñ fata fi dox kon ndey bu baaxul ñu laaj ko ko te it nag ñun sunuy maam ay taalu bi rek lañu mam ma Fatim Touré ci kër Samba kan su sëñ Fallou Moussa ñëw kër Samba te néegam balay dal kon lii bu ñëwee lii du asaar ñun sëñ fàll rek lañ am sëñ Fallou moom la ñuy nooyee gis nga ren jii gis nga nu suñu bernde yi soxna ndey yi mel da cee boole nag joxe àddiyee ak xeeb ko ak di jël càllalaam di ko sëñ jox sëñ Fataa fu ko neex na ko fa dire Mbàkke Balla ñun moom rek lañ am ñoo ngi yeesal sunu njëbbal ci moom di ko dolli dénk sunu bopp ak sunu njaboot ndax amuñu lu dul moom asalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf kàddu yi rafet na lool ku dégg kàddu yi xamee nag na ko waxee xam ne kàddu yi borom kàddu yi ku yar la noonu nga waxee seen waajur yi ku ne xam na ne ñoom ñëpp waa kër sëñ Fallu lañ ndax ku xam Serigne Talla Diagne ñoom xam sëñ Ousmane Diagne xam Serigne Ndiol Diagne ñoom. ñu ànd kook soxna Kane Cissé moom it ku nekk xam ne waajuram moom it waajur soxna Kane Cissé ni mel ci Touba kon li nga wax ne doomi donga lañ ñoom doomi donga lañ soxna si doomi donga la moom soxna ma di sëti donga ndax ñoom ñëpp dañoo aboole seen bopp jox ko Serigne Fallou noonu ko waxee ne Serigne Fallou mosaa ñëw ca dëkk ba seen néeg maam booba ñoom ñëpp ñu boole leen dajale leen jox leen Serigne Fallou ñuy nekk ci keppaaru Serigne Fallou ba am njaboot am ci kër Serigne Fallou kon li seen lépp kon li nga waxoon rek jërëjëfe Serigne Fallou bis bi moom bisu Jaañ la kon ku fi ñëw ku rek moom nga fi ñëwal soxna Ndey bis baa ngi nii mbooloo maa ngi indi nga fi bernde yu bari ni ko waxee léegi mbooleem koo xam ne ñëw taxawoon fi rek sa bernde yekkati ci moom ndax man mi sax jox nga may bool moo yóbbu ci doomi sëñ Abdou Faty nii ci biir dëkk bi kon mel na ne kon bernde yu bari na ma ko waxoon daaw waxaat ko ren at mu jot day gën a bari rek histoire fakal la macha allah mbooloo maa ngi nii yëpp ñëw nañ ngir sa bis bi ngir jàppale bis bi ana loo leen di wax jërëjëf sëriñ Fallou jërëjëf sëriñ Fallou waaye jaaraama Cheikh Abdou Faty sama sëriñ bu baax ginnaaw ba ma sante yàlla juddu ci yonent bi di sant sëriñ Fallou ñi nga xam ne moo boole Cheikh bu Fataa sant naa sama waajur bu baax muy Baye Ndiol Diagne ndax amaana bu ñu ko joxutoon Serigne Fallou addiye ba mu ñëw fii lii lépp mën naa ba a ne di sant nag sama yaay bu baax si sa ngaari ndax liggéeyam nag peetul benn yoon ndax bu feccum li neexee rek day jaay ca mbagg ya kon sama yaay suyee na ci lu bëri ndax sooda sax dafa wax ni maam ma Fatim Touré waaye maam Moudou Fallam Sarr Falloo ko Milance ba mu faatoo sëriñ Falloo dem balam Sarr moo ko yë moo ko ba mu ko tàggoo ni ko damay dem Màkka sëriñ Falloo ni ko nit ku xaritam mënuñoo sore loolu la sama baay wax mu ni ko nit ku xaritam mënuñoo sore ca déwén sa mu tàggoo ni ko damay dem Màkka mu ne ah kon boog demal daal di dem ba mu dikkee ca weer woo ca la nelaw bi ko sëñ Fallou yoonalee pare moom itam weer la ca teg nelaw kon di ko xatte mun sore kon ñun dañoo yàgg sëñ Fallou maam mu sëñ Fall rek la xam man nag sama ñëw fii sëriñ Fallou moo ma indi fii ci sama liggéey yu baay liggéey bu rafet mu liggéey ci daara sëriñ Fallou ci laa sukkandiku ba ñëw fii ndax keroog ba nga xam ni samay nopp Serigne Fallou yónnee na ci sama maam Lamine Cissé ni ko sama doom dafa bëgg sa doom sama maam dafa tiit ni ko man xaw ma ni woon sax Serigne Fallou xam na sëñ Moudou Afis demal delloo ko ko def naa ko àddiya ndax booba sama maam dafa tubaarkàlla bi mu ñëwaatee mu waxaat ko ko mu ñëwaat mun ko waa ji ne ko jël dafa am na ma ko fàggul ba léegi ñu ne suñu xel dal na ndax fàgg fàggu sëriñ Fallou di garab gum jëmbat la. garab ga xob ya du dee te garab ga du dee te fu mu toll di ko suuxat kon nañ ko ko suuxatle ndax buñ ko suuxatee dana ko suuxat buñ ko suuxat dana ko suuxat kon sant nañ yàlla bu baax a baax a baax sant Cheikh Abdou Fadal mi nga xam moo mooñ ci boole di sant nag Cheikh Abdou Fadal sama sëriñ bi ndax nag bàyyi ma benn yoon barki sëriñ Touba lu ma man rek moom la ndax bu fekkoon damaa tëj ca këram gee di ma xor ñooñal wala mu jël ma di ma def naan kon lii lépp du mën a ne kon lii lépp du mën a am kon damaa bàyyi ma nekk ci li ma war a nekk waaye mu bàyyi ma ak sama bopp ba ma mën lii tey wun na Serigne Touba seetaanu ma benn yoon ma di ko ñaanal nag yàlla na dund dund yoon yàlla noo xin gi laa koy ñaanal fu ma toll barke Serigne Touba Cheikh Abdou Fatah ma sañoon lu ma romb rek moo koy moom billaahi wallaahi barke Serigne Touba du jaaxaan te billaahi wallaahi de lii may wax nii fekkee war naa ci dara yàlla bu sama kàddu gee egg man sëriñ bu Fata maa ko bëgg ci sama xol barki sëriñ Touba te yimal yu ma ko lu yàlla bind man waa këram sax xam nañ ko ci man bu xew amee sax buñ bëggee ma jóg dañaan bu tudd leen sëñ Fata bu ñu ko tuddee ma jóg waaw ndax mooma ko wan lim ma wan moo tax ma bëgg ko fonk ko di ab taalibeem fa séenee nekk nag ab taalibeem ba faw barki sëriñ Touba te lu ma ci góobi rek dinaa ko gar waaw kon sant naa ko bu baax a baax di sant nag sama mbokk yi ndax nag ñoo ma dooleel muy samay rakk di samay mag di samay doom ñëpp lañoo jàpp ci bis bi ndax nag nit ki comme li nga wax rek mën nañoo luy ay siis waaye nit ki mënu koo luyee kon ñoom ñii nii ñu baax lañ ndax buñ ma seetoon mu ñaaw ñii ñëpp samay mbokk lañ te dañoo ñëw ngir jàpp ci bis bi pour mu taaru kon loolu sant yàlla la ku nekk nu mu gën a rafete rek nga koy xool bu ma defee lu baax ñun ñëpp day àndoo kontaan wën Serigne Touba te damaa dugg sama salle benn sangu ba sangu ba yàgg barki Serigne Touba ma la ci salle bi di jooy di ca kaw di jooy barki Serigne Touba ndax sant gu ma sant sama Serigne Fallou sama Serigne ba te xam ne ndaxuma benn yoon wën Serigne Touba ndaxuma benn yoon kon man sant yàlla rek moom a war te sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp samay mag a ngee toog samay rakk ñëpp a ngi nii. kenn desul wër na Serigne Touba te ñëpp a jàpp ci bis bi kenn seetaanu ma benn yoon kon man sant naa yàlla sant sëriñ tuubaa waaye nag sant naa Cheikh du Fadal mi nga xam ne moo ma sédd cër bii tey waaw moo ma sédd bii ba mën a toog fii tey kon sant naa ko bu baax te ma ko ñëpp santale nag wër na Serigne Touba sant Cheikh Abdou Fatah bu baax di ko wax di ko waxaat ndax lépp moom la. Cheikh bu Fatah ñi mel na njaboot xolom rafet na Cheikh Abdou Fatah tabe na bëgg na sagal nitam sëñ Fatah dama naa leen xamul sax maanaam sëñ Fatah xamul dara da jël ñeent téeméer loolu dama koy wax sax suur billaahi lu defe nañ sax dara dara du jël ñeent téeméer lu mu def lu mu gis rek defe ne ay junni lay jar xamul joxoon naa la tey bàyyi naa déedéet xamul loolu xamul loolu kon moom dama koy ñaanal ci barke Sëriñ Fallou yàlla na dund ba dund sàppi ko billaahi wallaahi te dara bañ koo jot nag san ordonnance bu ko dara jot barke sëriñ Fallou maa koy ñaanal te yàlla mi am mi nga xam nag moo am kàttan ak doole yàlla na ko doole te kàttanal ko man loolu rek laa koy ñaanal gërëm naa ñëpp sant naa ñëpp ma kenn jërë ngeen jëf. jërëjëf soxna si kàddu yi rafet na lool ku la dégg xam ne li ngay wax lu dëgg la ci yow Sib dafa taa moom ku ne xam ne jikkoom. fat na la te fàttewu la moo tax it nga fonk ko Sëñ Abdou Fatah ku ko fonk ko fonk sa bopp la kon yàlla ñu ko fi yàlla bàyyil mu gudd fan ba li mu yéene liggéeyal Sëriñ Tuubaa ak Sëñ Fallu mu defe ko ni mu ko bëggee jërë ngeen jëf kon ñu jox ba tey soxna si kàddu gi ndax ne mooy mënu cee ñàkk bar barkeelu ku ne xam na ne ñoom amuñ sago ci Sëriñ Fallu ak Sëñ Abdou Fatah kon bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu maa ngi nuyu sama mbokki jigéen sama mag yi fi nekk nuyu ñëpp di siyaare sax xam nga ne mënuma ay wax waaye nag ko gis nañ leen moom ne na ngi bañ sant yàlla sant yonent bi sant suñu ñaari waajur ñu ngi ci teg da sëñ Abdou Fatah amuñu fayam moo ñu jàpp moo ñu dooleel sax da ko bëgg te doo bëgg lu tàq ci moom waaye sëñ Abdou Fatah dafa bëgg ndey mi fonk ndey faale ndey respecté ndey ba ginaaru ndey sax boo ko gisee da koy fonk mbooloo ma la muy rëy rëy tey gii ñu bokk toog ba ndey ne ko kii Soda Diagne la mu ne ko di kii kii kii Mbène Diagne la ma taxaw ci ci kanam moo jékki ko jox anam barke sëñ Fallou Mbacke nit ñëpp di dégg ma ne ko Mbacke man maa ngi nii bëgg bëgg na nday fonk na nday faale na nday faale na ay bokkam nit na ku ko bëgg da ngay bëggaale li lépp nag lu mu lu am waaye soo bëggee nit nag te bëggoo ay mbokk mel na ne kon bëggoo ko Sëñ bëgg nday te bëgg ay mbokk bëgg lu bokk ci moom liñ koy ñaanal yàlla da yàlla na fi yàlla bàyyi suñ kanam mu yàgg ñoo jiite yàlla yokk aw fanam wi ba mel ne da aw doj barke sëñ Fallou Mbacké ba lépp li nga xamante ni bi mooy liggéeya baayam bii lépp lu mu ci war a def mu def ko ci yeggale ko jàmm ak salaam ñu ànd koog moom Sëñ Abdou Fatah daal ñun amuñu fayam daal yàlla daal moom lañ koy bàyyee mi am fay wax na dëgg ndey li mu dëgg la ma loolu lay dëggal Sëñ Abdou Fatah xamut luy jarub téeméer wala luy jarub mille francs jàpp ne lu jëm lu nekk da ay junni la war a war a jàpp barke sëñ Fallou Mbacké su la gëjee gis maa lay nemmee ko maa ngi lay laaj jiw dafee gëj diw ci lu mu ne diw ci lu mu ci lu mu laa moom daal amuñu fayam daal yàlla mi am fay moom lañ ko bàyyi rek mu fayal ñu ko dëgg yàlla jàpp nañu dooleel nañu kàttanal nañu xam na ñooy kan respecté nañu jox nañu suñu gëdd jox nañu lu ñu moom ci bu wér nag ba waa de sëpp ñu rek suñu bët maa nañoo ñu dañ ci këram gee dañu dañu xool ñoo ñam wala mu jàpp jàpp ñu jaam ay ñuy di fayu waaye nag di fu ko mbàkke ndax xam na li mu doon ndax xam na fi mu bokk ndax xam na amooy kan xam na tamit dañooy kan ñun nag sant nañ ñëpp gërëm gërëm nañ ñëpp gërëm suñuy mag gërëm suñuy rakk gërëm suñuy jaam yi fi nekk ñëpp lañu sant ak suñuy doom ndax maa nañoo seetaan nag te seetaan luñ ci dara nag lu ñu jóg lu nekk nit nit ñaa ca ànd ak ñoom lu ñu nekk lu nekk dañu eh, dañ ca ànd ak ñoom kon na sant nañ ñëpp di gërëm ñëpp te Abdou Fatah daal ñun yàlla nañ ko yàlla fayal daal ñun daal amuñu fayam daal askanu Njaañ daal moom te Abdou Fatah moom kenn amul fayam yàlla mi am fay rek moom lañ koy bàyyi mu fayal ñu ko jërëjëf soxna Khoudia kon kàddu yi rafet na kon day mel ne kon sëñ bi ñu wàcce fii kàddu yi rek bu ñu waree jàll feneen ñu jàll fa nga xam ne daal njabootu soxna Ndey Jaañ gi daje fii ak wàcc si soxna Ndey Mbàkke mi seen doom ak seen rakk seeni seen i ja ñëpp ñu ngi fi daje ngir bis bi bis bi jaral leen lu ne ndax ku ne dégg nañ li ñu wax seen diggante ak Serigne Abdou Fatah loolu nag ñoom ca maam yàlla tàmbale ba egsi wàcc ci Serigne Fallu wàcc seen waajur looloo tax yéen kon mu leen a ñàkk a tax takkal seen laxasaay Serigne Abdou Fatah Serigne Abdou fata nag daa gis ni sëñ Fallu defoon seeni waajur rek moo tax mu def leen noonu yéen ngeen neex a doomoo neex a dongoo neex yu am jub ngeen taalibe yu baax ngeen dong yu baax ngeen yoo xam ne nii kenn du leen gis ci loo xam ne li ñuy at cible way tere loolu moom ngeen nàmp moom ngeen dund kon jërëjëf yàlla yàlla guddal seeni fan it yàlla nañu ko teewee ndagan déwén jërëjëf barke sëñ Fallu laylatu mawlid jinnabi laylatu naawir yabi ليلة مع تعبي وتورش تعظمي بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاح بها الرباه والسلام مع اندفاع النقمين